dikkati na juróom-ñeenti teemeeri junni ci ay électeur fi mu ne nee nan furaas tàlli xidéem kenn gisu leen kenn xamul fu ñu nekk ci fichier électoral bi turbine yéen kaay naan maan ñii bu ñu réeree lambaay mën na ñaaw aatu mama yéen kaay dee média bi naan maan juróom-ñeenti téeméeri junni ci électeur laa la wax de day caaxaan ñoom ci boppam la ñu gisul ci fichier bi les ko naan man moo taxit bugaan gay danee nga naan xam nga juróom-ñeenti téeméeri junni ci électeur kenn gisuleen leen ñooñee bés bu ñu sàllar ñi ko ne ay sénégalais lañ am droit wote ci réew mi te seen tur nekkul ci bërëb ya ñuy watee lii mën naa yëngal réew mi gësam ko moom buggaan ci vox populi naan leen daal la ñuy xamal président Macky Sall duñu nangu nag mu daal di sóob réew mi ci kaw goo xam ni maar day taali yëngal gësam Sénégal ñuy xeexoo suñu biir lii lan dul nangul Sall tribune yéen a kaay naan ko kaay la ñu yor ci fichier ci élection yi ci boppam moo daal di jéggi dayoo ëpp na ñaar ci fichier bu ñu sukkandikoo ci kàddu buggaan gay dani moo taxit ñeen fukk benn ci ay plainte daal nañ koy xam ne ni dees na ko jébbal conseil constitutionnel bés bi le jour naan man ña nga xam ne ñoom la ñu toll nii daal dinañuy tàmbali seenu campagne fayal laahu l'info yéene kaay nan kon déet dañoo tàmbali kay jéebaane régime président Macky Sall bee ca Union européenne l'évidence yéene kaay nan kon ñeent fukk ak ñeent ci ay rëkkale lañu daal dinañuy jële combat bi fii ci Sénégal rik ko bitim réew collectif bi nga xam ne ñoom ñoo bëgg ñëpp ñi nga xam ne sàkku nañ ko bokk ci élection yi l'évidence naan man daal dinañuy daje ab délégation boo xam ne mbootaayu réew yi nekk ci dénduk Europe la daal di boot critique yéene kaay naan man mi mi bugaan daal di boot ñeneen ci ay candidat yu nu rëkkale ñuy naqar lu parrainage bi nees amee ca conseil constitutionnel waaye tam manipulation bi nga xam ne def nañ ko ci fichier bi ba ñu ñi jàlluñu dem ca union européenne nag naan kon Sénégal waxuma la parrainage goo xam ne ñu ngi ciy segg gaa yi ña leen saf jàll ña ca des ñu rëkkale leen waaye démocratie ci boppam moo amut ci réew mi laas naan kon bu fa moon mu neex ñoom rëkkale yi ci boppam porté nañu plainte informaticien bu conseil constitutionnel 24 heures yéen a kaay naan kon porté nañu plainte informaticien bu conseil constitutionnel porté plainte direction générale des élections collectif bi nga xam ne moom mooy xeex élection yoo xam ne ñëppay jàll waaye itam démocratie am ci réew mi war nañoo jébbal plainte bi procureur de la république diggante Mimi Touré Bougane Gueye Dany ñu àndal wane ay preuve yu wane ni ma ne la sikundik sikundik dafa am ci parrainage yi jommal nañ ku ne ba daal di ñoo xam ne warut woon jaarale ko ci clé USB yi wala it format boo xam ne ñoom fichier ba nu yor mënu ko liir daal di jël fichier bi caxat caxatee ko cim jël yenn ci ay parrain tëbal jël ay def ko ci yenn ci ay tur wala def ko ci yenn ci ay sant jaxase tur yeeg sant yi yenn saay waaye tam daal di jël ay parrain tàbbal géej fayal laaxu lu leen ci neex collectif bi de xanaa ñenn ñi bañ a jàll le mandat yéen kaay naan kon en tout cas daye nañu ak yi nekk ci union européenne ñoom collectif bi daal ne bu nee nii lay mujjee mënees naa dakkal mbir yi fayal laaxu ndax nag cin bu naree neex bu baaxee xeeñ waaye fi mu ne élection présidentielle yi ci réew mi la muy xeeñ neexul Sud Quotidien naan kon en tout cas combat baa nga bitim réew réew mi Quotidien naan réew ba maar day taali l'indépendant nan kon en tout cas nguuru Sénégal day daanaka jaratul dërëm ca bitim réew ña ngi koy wili pande ba maar day taali booy actu naan maan fi mu ne lay xeeñ ci boppam moom moo di dàqay élection waaye tam wooteeg waxtaan goo xam ni dees na ko riig ci processus bi waaye tam riig ko ci ban fichier moo baax turbine nan kon lu def waxu waaye lu ay di njàmbat fi mu ne nag ña xam ne ñoo war a bokk ci élection di candidat yoo xam ne mënees na leen jàppe yu ñoom ci boppam la ñu daal di riig teg leen tànk ña nga xam ni jàll nañu sax à tout moment ña ngi cay danger yéen ayib day média bi naan ñu jëm ci élection présidentielle yoo xam ne mësta am ci réew mi ndax ba ma ne la gaa ngi defi recours gaa ngay kalaame gaa ngay porter plainte ci waxtu woo xam ne daanaka weer moo des ci la élection loo xam ne mësta am ci réew mi laaj ba samp moom ndax élection présidentielle ñaar fukki fan juróom ci weeru février des na am naan kon en tout cas plainte yeeg recours yi kalaame geeg boole gi bari ba mel ni tulleeg bokkee daal di saaraan foqatee nguur gi ci loxol président Macky Sall ak ña mu jiital lii tiital leen ba ñu naj ñenn ñi lii la gaayooye ñu naj ne du ñu bàyyi mu jàll tey du ñu bàyyi mu jàll ëllëg bokk rek turbine naan kon bokk gi ma ni la mën naa xajamal mbir a à tout moment te mbir yi bu xajamee ma ni la dàq rek lu waay wax ak lu waay def ma ne la dàq gi mënta ñàkk libération yéen kaay naan kon en tout cas Bougane Gueye Dany mi Mimi Touré dawuñ ca saala ña nga jiitu ca xeex ba te naan élection yi bu dee nii la nar amee day ñu nag président Macky Sall la laay yéen kaay naan maan booba moom Thierno Alassane Sall ngay xupp ne Karim Meïssa Wade du jàll tey du jàll ëllëg ñaari nationalité la am le quotidien le quotidien naan kon tey kay kalaame Karim Meïssa Wade dina dem ca conseil constitutionnel moom Thierno Alassane Sall war a yónni mandataire am ngir mu fas yéene rëppatal candidature bu may Karim Meïssa Wade Walf Quotidien naan en tout cas Thierno Alassane Sall day ngankal na Karim lu mu l'observateur naan kon Sénégal it ngankal nan Amadou Badi ndax bañ ko falee ak léegi moom Amadou ci boppam defu déclaration de politique générale gaa yi lekk ko ñoom sénégalais ba mar day tàlli mel ni ñàkku bi yëga lii ko di jee naan ak lu mën a am bu leen fàtte ni gouvernement bu sénégal rëkkala yaa ngi koy wili pande bés bi le jour naan kon teg tànk googee de boo maytul bennoo bokk yaakaar def ko Bassirou Diomaye Faye dàqu ñu la Thierno Alassane Sall def Karim Meïssa Wade ñoom ñu def ko Bassirou Diomaye Faye daal di koy kalaame ngir du bokk l'enquête naan kon booba ñoom Pastef ci boppam ña ngay dajale millions yaa ngi tawee fu na ngir gungee candidature bu Ousmane Sonko bi tribune naan kon en tout cas ña ngay wax de waaye élection présidentielle bi bu bi jàng doxa ndëgg si dëgërul ndax aatuuma maa mbir yi mën naa basculer juróom-ñeenti téeméeri junni ci électeur ñoom la ñu téye ne leen seen tur nekkul ci fichier bi bugaan ci les écoles naan ay bu ñu sàllar ñu koo juróom-ñeenti téeméeri junni yi turbine nan kon moo tax fi ne élection yi la muy xeeñ neexul jooyanti rek lu ko may lambaay mën na ñaaw turbine sport naan kon sunu équipe bi daal lañ cay jooyanti amut nañu tàmbalee kaan gi neex na saf na sut quotidien naan kon sunu gayndey lañ leen santoon def nañ ko le soleil naan kon suñu si ci baasu xewam tàccu nan nu matale nan ko stade quotidien nan kon en tout cas fëgg nan suñu dënn wane ni nag ñooy champion d'Afrique ñetti bal ci dara la ñu daal di dóor Gambie stade naan bii mooy ñeenti yoon ñu am ndam ñetti bal ci dara ci kaan Lamine Camara kaanam bu njëkk dubleem bu njëkk Walf quotidien nan kon en tout cas Sénégal la mu mer lépp si bi ko Gambie ni ki démb l'observateur naan kon score bi baax na Lamine it kenn du moom ndax tax na mbokk yi respecté ñu Aliou Cissé ci vox populi naan attention jeexagul de ndax nag suñu ñetti match yëpp daanakay dér bi la réew mi quotidien naan coow laa ngi ci ñetti xale yu jigéen yi nga xam ne collège la ñu nekk dañuy jël ay appel Facebook di la summeeku loo ba daanaka dum bu ñu lay woo ndekete ñu ngi lay filme suñu paree di la chantage loo te xale yu jigéen yi kat ay liir la ñu juddooguñu daanaka ñooy def ñaaw ñaawteef fii ba yoon am ca loxo tribune yéen kaay naan kon coowal billet noir yi imam baak ñam ko séqal tàbbal nañ leen kaso ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm SeneInfo